mbokk ñi seetaan salaamaaleykum bu kenn wax ni pèlerinage à dafa am jafe-jafe zam-zam aj màkk gi amul benn jafe-jafe zam-zam ndoxu zam-zam baa ngi fi ni gàdd lii dëgg mooy gestion bi moo baaxul gestion bi moo baaxul Aziz Kébé jël ujaaju Sénégal yi séddale leen ñaar ñi dem ci commission nationale dafa mel ni ñooñu dong ñooy ay ujaaj par rapport ak ñi dem ci privé bi mu war a nekk ndey ji seex tëdde njaaxaanaay indi séddale féewale gu sëkk ci biir pèlerinage bi respect bi des lool nawloo gi itam des lool charte yi ni mu tëdde mooy kenn ku mu ci doon da ngay joxe ñeenti téeméer wala juróomi téeméer dinaa leen wan léegi facturation yi nga xam ni agence yi bokk ci regroupement bi ñu bokk ñun moom la ñu fay ba jot seeni ay facture bépp ujaaj bu mu doon boo wàccee aéroport bu jas am nga sañ-sañu am guttu ndox bu zam-zam comme ni mu doon amee at mu nekk waaye ren dañoo gis ni bi ñu fayee ba noppi mënuñu ko jàppee lu dul ni Aziz Kébé faaliwul ujaaju sénégalais yi respecté wu leen te faaliwul agence yi nga xam ni ñooy convoyer pèlerins yi Sénégal benn bopp la yenn jullit yi ñooy dem Makka kon Aziz Kébé mënu leen séddale coowu pèlerinage bi yépp Aziz Kébé la ñu ngi demandé ci président de la république mu def benn audit audit moom mënut a ñàkk ci pèlerinage bi audit ci wàllu gestion muy xaalis mënut a ñàkk ñu ngi koy doore ci wàllu billet d'avion yi Emirates ak euh, Ram ak euh, Turkish Airlines Ethiopian fu mu ci doon mën nga faa am billet d'avion un million wala lu yées un million pour convoyer sa pèlerin mu dem Makka aller retour Aziz Kébé moom jaayi billet d'avion un million trois cent yu manqué dix mille francs maanaam un million deux cent quatre-vingt-dix mille francs léegi imaginel ba noppi mu ex-juge la ni sa genn wàllu pèlerin yépp dañuy dem ci Flynas muy compagnie bi nga xam ni moom la loué te amul benn voyagiste privé bu xam clause contrat bi nga xam ni moom la Aziz Kébé signé ak waa Flynas ba noppi mu forcé la ni la say pèlerin da nga leen di yóbbu ci billet bi ñuy jaayee un million trois cent waaye doo yóbbu ci billet bi ñuy jaayee un million wala moins d'un million loolu di jaay doole goo xam ne ci benn réew loolu kenn waru ko nangu loolu maanaam amul amul mën maa jiite aj gi compagnie bii ma waxal sa genn wàllu ujaaj ci nga leen di yóbbu jëndal leen billet un million deux cent quatre-vingt-dix mille te yow nga mën a am billet d'avion un million mais force ci moom compagnie bi mu loué foofu ngay yóbboo say ujaaj loolu laa ni amul faw voyagiste privé yi am fulla ñoom ñëpp ñu dóor ci kaw taabal ji ñu xam ne aj màkk gi mu ngi bëgg a yàqu te li koy yàqu ngi bàyyeekoo ci dogal yi Aziz Kébé di jël Aziz Kébé encore une fois ñu fàttali ko ni moomul aj màkk gi benn jalgatee ngi noonu ci wàllu billet d'avion yi amul benn voyagiste boo xam nan la Aziz Kébé signé contrat ak waa Flynas ndax nanguwu leen a wan contrat bi te bu fekkee da nga nekk chef d'entreprise nga am agrément wala nga am quota di yóbbu sa ay pèlerin normalement bu nit ki signee contrat ak benn compagnie aérienne war nga am calendrier nga xam lu néew néew ci nan la boobu boobule contrat kenn ñi mu koo laaj kenn kenn ñi mu koo laaj ñu toog muñ loolu imaginer boo amee téeméeri ujaaj ñu ni la force sa juróom fukki ujaaj da nga koy yóbbu ci fi ngay fayee un million trois cent te mën nga am billet un million donc say cinquante pèlerins yëpp kenn ku ne tegal nga ko trois cent mille léegi trois cent mille multiplié par cinquante ñaata million la Aziz Kébé perte loo ko voyagiste privé yi ñu nopp ub seen gémmañ bi ci des mooy kenn ku nekk joxe nga xaalis pour valise ak saak yi nga xam ni moom ngay voyager ci Flynas comme chaque année ni muy amee Flynas dañu doon joxe ay sac ba léegi ujaaj yu bëri jotuñu seen saak jotuñu seen valise te versel nañu leen ana xaalis ba ana bagage yi valise yi ak saak yi kenn ñi mu ko laaj ñun ñëpp ñu àndandoo mel ni kenn ku ne yaa ngi xool nu ñu la yokkale sa quota wala nga xalaat Aziz Kébé nangu sa quota ngeen dem ba moomale Aziz Kébé pèlerinage à la Mecque bi moomu ko moomu ko war wa rasuli xam leen ni moomu ko dafa am kum fi remplacer te moom dafa war a dem keneen ñëw remplacer ko ñu ngi interpellé état bu Sénégal mu def audit ci xaalis versement wu ndoxu zam-zam bi ak contrat wu Aziz Kébé ak Flynas ak contrat wu Aziz kebe ak euh, ni mu exigé voyagiste privé yi ñu yóbbu seen moitié pèlerin yi ci Flynas ñu xam ci gan anam la boobu le contrat ak waa Flynas loolu ñaari yoo xam dañ koy sàkku ci gouvernement bi ñu def ko ay audit ñetteel bi mooy Aziz Kébé bokk na ci dogal yi mu jël ci jamonoy général Dia bi leen Arabie Saoudite ne dañu leen di jox ay matelas ci tente yi nekk ci mun Muna général Dia dafa bañ parce que dañu nit ki mënoo ko exiger ni ko dama lay jox matelas boo xam ni benn matelas bu ne mu ngi coûter mille trois cent réal deux cent mille francs ñetti fan ngay def mun a matelas bu ndaw la ñu lay jox boo xam ne yow dong yaa ci xaj gars yi sax bàmmeel la ñu koy woowee ñun la matelas boobu ujaaj bu ci nekk ujaaj bu nekk sa voyagiste fayal na la ci deux cent mille francs te bu njëkk li ñu xamoon mooy jënd ay sajaada jënd ay matelas kenn ku nekk ci ay trente cinq wala vingt cinq rial loo xam ni deux mille francs wala trois mille la la doon coûté Abdoul Aziz Kébé exjugé ko voyagiste bi mu fay ko deux cent mille francs lu général Dia a bañ Aziz Aziz Kébé mënu koo bañ ah kay mun na koo bañ parce que matelas yi ñuy tëdd mun naa ku nekk xam nga ni mënut a coûter deux cent mille francs ñetti fan yéen ñuy loué appartement sax kan moo gis appartement bu ñu loué ñetti fan deux cent mille francs amul fenn surtout ay matelas yoo xam ne ci suufu tànt la nekk boole ci ñu def ko ak ay sagar yoo xam ne daanaka nilon la da ngay tëdd ci kaw di ñàkk tooy xib loolu laa ni beneen gestion la boo xam ne leerul état bi ñu ngi koy interpellé mu def audit. ci gan anam la Aziz Kébé juboo ak naar yi ci matelas yi ñuy teg ci tant yi nekk ci Munna dafa war a leer bi ci des itam mooy ci wàllu lekk yi restauration yi ci mun Munna daaw yéen ñëpp umpalewu leen bari na ujaaj yoo xam ne lekkuñu naanuñu Munna ren lekk nañu naan nañu mais dafa am ci contrat bi loo xam ne leerul ci versement ak anam gi ñuy versé xaalis bi dafa laaj ñu def ci audit bi ci des mooy même moom Aziz Kébé ci ujaaj yi mu indi mu ñu ñëw ci commission nationale amuñu ay tànt ñu bëri ci ñoom ci biti la yendu ci lañuy fanaan dañoo mujj tas leen jël benn xaaj yóbbu fële jël beneen xaaj yóbbu ci aj ak jekk jël beneen xaaj yóbbu ci ginnaaw lépp ñu noppi ren dem nañu ci wàllu lekk yi ba ñu gis benn naar bu mbéj ab sénégalaise ñu mbëpp mbëppal ko bàyyi mu sedd benn xëccoo boo xam ne da dem bu foog ne Sénégal yi dañoo xiif fekk na xiifuñu dañoo war a lekk dañoo war a naan mais gisuñu ku leen taxawu ci na mu jaadoo question bi ñuy posé mooy Aziz Kébé day ñëw pour jàppale ujaaj yi pour jàppale si privés yi pour ñu gën a sellal seen pèlerinage wala dafa ñëw di leen noggatu dafa ñëw di leen jaay doole wala lu tax kenn ñi mënut a affronter Aziz Kébé pour ñu recadrer ko lan moo tax kenn ñi mënut a wax dëgg kenn ku ne boo taseeg Abdoul Aziz Kébé da ngay sëgg daaw bi ñu ñibbee ak pèlerinage daaw bi ni mu catastrophique premier point de presse bu Aziz Kébé def ni am nañu satisfaction totale ci kanamu voyage voyagiste privé yi te kenn ñimiwul wax ñëpp ni patt ci salle bi da ngay sax rus parce que pèlerinage daaw bi ak li ci am ci wàllu njuuj njaaj ci wàllu xaalis mais gouvernement bi yëg na ko parce que première dame coow li fi la ko fekk parce que yeneen kilifa yi àndoon ci pélérinage bi xanaa ñoo wax ni lépp ump na leen nañu te dëgg yaa xayti mu voyage voyagiste privé yi ñu ngi bëgg a dee wan naa leen sànq ay facturation yoo xam ne dañ koo fay tey sénégal yi nga xam ni dañu dugg Falaynaaz wàcc dakaar ñoom ñëpp naan zam-zam dafa manqué zam-zam dafa manqué arrêté bàyyi leen caaxaan yi zam-zam manqué wul ujaaj yooyu ku ci nekk fayal nañu la xaalis pour boo wàccee dakaar nga fekk fa sa ndoxu zam-zam yóbbu ko sa kër boo wàccee dakaar na fekk ñu fa zam-zam parce que Aziz kebe deful liggéeyam ni mu jaadoo pour avion yi yóbbu zam-zam comme ni ñu ko doon yóbboo c'est-à-dire mooy li ujaaj yi soxla moom intéressé wu ko non loolu fulaalu ko loolu bàyyiwu ci xel ba tax na ñun li ñuy wax mooy pèlerinage gi moomu ko moom Aziz kebe ñu ngi interpellé gouvernement bu Sénégal ñu remplacé Abdoul Aziz kebe parce que aj màkk gi buñ ko waxee ak buñ ko waxul metti na buñ ko waxee ak buñ ko waxul yàqu na buñ ko waxee ak buñ ko waxul problème yi jéggi na dayoo voyage si privé yi ñoom ñëpp kenn ku nekk di xool nu ñu la yokkale sa quota ku nekk di xool noo mën a rataxale si diggante ak Aziz tax lu ñu la teg nga tegee ko ñoom ñëpp ñu ub seen gémmañ kenn ñi mewut a wax mais ndax lan aj gi Aziz Kébé da koo moom wala ñi ànd ak moom dañu ko moom wala gouvernement bi sax da koo moom aj màkk jaamoo yàlla la li man istataa ilayhi sabilan istitaa bi nag dafay tegu ci alal dafay tegu ci doole dafay tegu ci encadrement mais amul benn voyage si privé tey boo xam ne sa encadrement tegu na ci yoon di liggéey di perte Aziz Kébé moo jëkk exigé ci voyage si privé yi ni leen bu ngeen demee màkk ak seen i ay seen ay maanaam liggéey ni ngeen liggéeyee seen seen cahier de charge yu liggéey li ngeen luyee hôtel yi li ngeen luyee seen i oto euh, maanaam lépp lu ngeen dépensé da ngeen may defal bilan ma xam ba xam seen bénéfice bi ngeen am lu jaadu la lu jaaduwul mais moom la ñu war a audité xool ba xam moom ni muy doxale li mu ci am nan la nan la ko ci amee Aziz bi ay ujaajam ñuy dëkk ci hôtel yi gën a màgget hôtel yi gën a sori hôtel yi nga xam ne kenn bëgg ko fa lay loger ay pèlerin te kenn du ko wax encadrement baaxul amul fooy gisee benn ujaaj bu ñëw ci commission nationale du ànd ak kenn te du xam ne mu ma a def yéen ñëpp ngeen gis ko ub ci seen gémmañ ngeen gis ni sénégalais bi lu mu mën di am wàcc Médine def fa ñaar ba ñetti fan ba ñeenti fan ba semaine moo ko gënal amul benn ujaaj bu ñëw ci commission nationale def Médine lu ma ñetti fan da nga naan cëpp xef xëppi Aziz Kébet ñu taxañaat la dugal la ci kaar yóbbu la màkk donc nañu audité itam nan ci gan anam la ñu jëlee la commission nationale muy délégation générale bi Aziz jiite ci gan anam la jëlee hôtel yi nekk Médine dañ ko audité ñun xamuñu xaalis bi ah xamuñu gestion bi mais xam nañu acc xam nañu yëfi nan lay déroulé woo dama ne ñu ngi interpellé président Macky Sall ñu ngi interpellé Amadou Ba ministre des affaires étrangères ñu ngi interpellé ñi nga xam ni ñooy corps de contrôle yi di waa euh, euh, inspection générale d'État ñu ngi interpellé itam ñi nga xam ni ñëpp ñoo am sañ-sañu def ay audit def ay contrôle ci gestion ñu xool gestion wu pèlerinage à la Mecque bi Abdoul Aziz Kébé jiite nan la ko jiitee loolu mooy li mënta ñàkk zam-zam manquéwul màkka Aziz Kébé moo bëggul ujaaj yi am zam-zam wax ci gàtt ci gàttal gudd gàtt loolu la mais léegi ñun ujaaj yi mais léegi ñun voyagistes yi mais léegi ñun encadreurs yi ana ban bénéfice la ñu amati ci Aziz Kébé ci pèlerinage à la Mecque hôtel yi nga xam ni fi la sénégal yi doon dal bépp jaaykat wala bépp doomu Sénégal bu nekk Arabie Saoudite boo jógee Riyad boo jógee Jidda boo jógee faneen ak faneen boo musaan ñëw hôtel yooyu mooy nekk sa daluwaay nga am fa jenn ndey jooy taxawu bu aj bi jeexee ngay jaay ren Aziz bi dafa jël dogal jël ay étranger ñu ñëw nekk ci buntu hôtel yooyee benn sénégalais ak ay policier benn sénégalais amul sañ-sañu dugg ci hôtel yooyu doo jaay doo lal doo wax am na ci sax ay xale yi jaaykatu doomi Sénégal yu nekkoon fii yoo xam ne dañu leen mujj kepp yóbbu leen kaso mais yow boo ñëwee ci pèlerinage war a uuf sa ay doomi réew jaxase leen ne police yi réew moomu pour ñu sonal leen mënuñoo daan seen doole te nag ak màkka kenn mënut a fexe ba nit ki du ci bénéficié wu li yashhadul manafia la yàlla wax li yashhadul manafia aziske bi mënuñoo xañ nafaat yi nekk ci pèlerinage à la Mecque yéen voyagiste privé yi sëgg gi metti na topp gi ngeen topp intérêt yi métti na bàyyi xel gi ngeen bàyyi xel seen njëriñal bopp métti na résister leen def face ak Abdoul Aziz kebe ngir mu jubbantuwaat ak màkk gi wala ñu jëlee ko ci bopp pèlerinage parce que moomu ko ñaata ci ay voyagiste privé la ñu sanctionné nangu seen quota completement bàyyi lu ñu leen dara te ñooñu gaaf ga ñu def commission nationale muy délégation général def na gaaf gu toll noonu kenn kenn sanctionné wu leen dama ni daaw li suur ci ay millions ci ay falsification yi am ci ay contrat yoo xam ne signé nañ ko fi muy njuuj njaaj ak càcc ci leer nañ ñëpp xam ko teg ci seen tànk ma ni loolu laa di moo gën a graaw te dañ ci teg seen tànk am na ñu def mooy mooy que saa ñu nangu seen agrément sanctionné leen ñoo xam ni ba ñuy nekk ci aj màkk Aziz Kébé xalaatul woon ni moom dana jiite pèlerinage Sénégal wala sax ñëwagul woon màkk tey ñooñu ñu nangu seen agrément nangu seen quota ñu toog mënatuñoo organiser mënatuñoo dem te yàlla xam na ni ñooñu yàquñu dara ci aj bi il est nag yéen ñëpp ngeen taxaw yëkkati seen kàddu mu nekk genn parce que lii mënut a continuer te mënut a wéy Sénégalais dem ba egg ci léegi sax nag boo ñibbee dootoo am zam-zam ah yëf mu ngi bëgg a jéggi dayoo ak càcc am na ci ci wàllu contrat restauration yi ñu muñ ko. am na lëndëm te am ci billet d'avion yi ñu muñ ko lëndëm ci ci wàllu saag yi ujaaj yi war a am ñu muñ ko lëndëm te ci hôtel yi ñu war a nekkee ñu muñ ko. aaya doomu Sénégal yi ñuy jaay ci hôtel yi ñu dëkk ñu muñ ko nangu kotaawu euh, pèlerin yi euh, voyagiste yi ci ma tey ak jaay doole ñu muñ ko exiger lu la neex ci pèlerinage bi ñu muñ ko ba ci sax boo demee ci fi ñuy bindoo ci pèlerinage dakaar danga nga lii du benn pèlerinage benn tante bu mag pour délégation général ay tante yu mel ni ngunu ngir privé yi yépp ñu muñ ko waaye ujaaj bu ñëw màkk ba ñibbi te yóbbu woon ndoxu zam-zam te nga tukkee ci Flynas di compagnie bi état bi jël te ñu exiger voyagistes yi ni leen seeni xaaji pèlerin ci compagnie boobu ngeen koy yóbbu bépp ujaaj bu bu ni cëpp Sénégal amoo ndoxu zam-zam te nga fay ba noppi ah loolu nag mu ngi bëgg a ëpp te lu ëpp nag tuuru ñu ngi interpellé kilifa yi ñu def audit waxuma dong aj bi de keneen jiite ko ko bokkut ak Aziz Kébé waxuma loolu de loolu day yomb mais keneen jiite ko ba noppi ñu def audit ci gestion bu Aziz loolu la ñu exigé état bu Sénégal ñu taxaw ci jaa ngi jëf mbokk yi loolu lu ñuy wax la ndax dafa am ñu am sañ-sañu wax li ñu jàngat li ñu gis am ñoo xam ne xëy na du ñu wax waaye loolu mooy li fi am comme xibaar ñun loolu mooy suñu rôle ñu taxawee ko ngir yeggee ko kilifa yi ñuy bàyyiwaat xel bu baax ci gestion pèlerinage bi encore une fois bu leen ragal ku dul yàlla bu leen tiit lu dul yàlla pèlerinage bi kenn moomu ko du moomeelu Aziz Kébé laataa moom général jaa ngi fi woon maa Mansour Diop ngi fi woon Thierno Diakhaté ngi fi woon Moustapha Guèye ngi fi woon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni bii Thierno kaa ngi fi woon El Hadj Rawane ngi fi woon kon moom day dem bu ngàbbinam baaxul day dem te yéen ñëpp xam ngeen ni gestion wu Aziz Kébé ci pèlerinage bi baaxul baaxul baaxul séqu ñoo Aziz lenn bañuñu ko jotewuñu ak moom lenn aj gi dong la ñu joteel ñun ñun gestion wu aj moo ñu tax di wax te ku ne xam nga ni gestion wu aj gi baaxul privé yi ñëpp a perte ren mais ndax lan est-ce que Aziz Kaye moom dafa perte est-ce que moom dafa perte jaa ngeen jëf